état d' état d' autre waaw kenn ah. mu daaw dox naa la sànq gor ak jaam dama ko fay tudd ci jalbeen dama la ñaar ñi ànd ay gor lañu sénégalais yi leen fal fii sonko bu bal si jomaay bu faloo ku ko fal hmm. sénégalais mais sonko ko fal ñun sonko lañu ñu fal hmm. basiru jomaay xam na li ko fa teg sonko moo ni dañu doon xeex sonko du bokk du bokk man leen ngeen créer ñaari candidat créer ñaari président mool moo leen dal waa léegi ñoo ñu nga xamante ne nag moom yàq rek la leen tax a jóg mais ñoom kay ñoom ñooy dénigré di wax waaw Bassirou Diomaye Sonko Sonko lii lay doon léegi seen nekku ci Sonko xam na li muy doon Bassirou xam na li muy doon dama la loolu de il faut ñu xam tamit lu muy doon Sonko suñu xalifa général la Bassirou Diomaye du suñu sëriñ ah waaw ñun xalifa général lañ yor de mais instant bi si wàllu këyit Sonko Bassirou moo ko ëpp moo ko sut quoi comme déggoo xam nga gore ah, wàllu mooy Sonko li ñu xam xam nga fi jaaro muy parti démocratique sénégalais muy PDS dañoo jël benn kandi benn leader rek ñu mooy seen candidat muy Karim Meïssa Wade si moom ni kii bu dul moom du kenn ma nga tëdd Qatar ñun ñu am plan A plan B plan C plan Z plan Y plan I abata saa jaaxa lépp lan am ñun pour tous les plans ñoo jaaxal waa ji jaaxal gaañ fu nu teg lu lal ñun ñun leen nañ ñu tekk rek ñu indi leen quatre pistes cinq pistes ba six ñu naan kan la war a doon ñu tànn ñaar ñetti prison ba kenn yàlla ay ci potu buur ay suñu borom mooy ndaanaan lii de la ñu defal Sonko ni joxaay Basir laa tànn nañu dem gaa yëpp nii ñii naan non ñenn leen eh euh, taalibe jëfandikal ñun kay nañ topp Basiru rek te Basiru mii bu leen fàtte ni turu Pastef bii Serigne Saliou Mbacké ko njëkk a tudd pour di murid yëkkati sa loxo ca kaw moo tax murid bu xamul moo naan dafay jël kàttan di ko jox Amadou Ba moo tax Touba wate boppam. Ah, mais Kara man policier ma wax mais mais mais joxewoon a ndigal. ndigal ci. pour dem voter Amadou Ba. waaw loolu moom la engagement Bamba laay wax ak Serigne Saliou xam nga su may wax bàyyi ak maam nga may wax doom yaag séti ya xaw ma yow daal man dama ni Serigne Saliou Mbacké moo ni réew mii Pastef ak Pastef ak pas-pas moo koy defar policier boo xam moo doon garder Serigne Saliou moo ko wax Sadio la sant. nekkoon police Touba. Hmm. Hmm. sama gémmiñam sama nopp. Hmm. moo tax mbir mii du hasard. mbir mi mbiru Sonko mii du hasard ku yebu tey ci ku man lañ naan bëri ko ci mbartal Barcelone rek ñu ànd dem nga ànd naas Sénégal naat Sénégal vert la ñu wax de Sénégal bu naat la ñu ñaan. alors si loolu exactement euh, Ousmane Sonko jàpp ngeen day retiré wu carrément sa sa analyse wala kon day ñëw euh, nekk premier ministre wala kon nekk le président de l' assemblée nationale wala kon dem jëlaat place am impôt domaine bi Amadou Ba doon gérer comme nekk fa nit ba Sonko dem jiite impôt domaine exactement. yaa ngi may dugal ci foo xamante ni li ma la wax ni la. man sama xalaat bopp la am président Diomaye la ñu fal Sonko premier ministre président assemblée nationale. mais yaa ngi gis Sonko premier ministre maa ngi ñëw rek la retiré wu Sonko nan lay retiré woo pourquoi wu. yow Fall loolu dégg naa sax ñu ne sax Sonko li tax da ngay laaj da ngay laaj bi waaw palais bi foofu damay kenn falu ko muy dem waaw loolu damay laaj ndax xool yaa ngi féex laay njëkk laaj soo boobu xanaa amul nga tagal ma ko ci koor gi mbaa xool yaa ngi féex am na ñoo xam ne kontaan nañu <laughs> de waaw moo tax may laaj mbaa ah? xool yaa ngi féex mais soo gis Bassirou gis ci palais bi kenn nga war a gis suñu dëkkandoo yi si si si si si si angle bi. ban angle télé bii si angle bi. ban la ci télé bi nekk si angle bi. doo ko tudd ban la waxal fii TFM Sen TV fi nekk ak ñam boo ko ragalee ma tudd leen ñun fii fii amul lool de fii Sénégal gu bees lañ yor de le pay leer ñan ngay tudd bi ci angle bi mooy ñan. Sen TV aca bisimilah loo ci wax. <laughs> man kontaan ñu de. ah ànd bi mais ku mer boo kooku mer yaa xam de. ñun euh, waxuñu waxuñu nag euh, euh. ay loolu Macky Sall ni. parce que dem gis naa ñu teg benn débat ñu ne pourquoi Diomaye di wooyee Sonko président Sonko. Ah, loolu respect la boo xamante ne Diomaye mooy góor. dégg nga ma la xam nga askan bi faluñu Sonko Diomaye nga président nii. keneen président. waaw xam nga su ma nee baatu ah, ngor. xam nga ngor. gis nga gis nga gis nga dëkk bii ci dëkku Seydina Limaamu bii di sama machine fi ma bokk. Hmm. muy yoof gii ñu tuddee fii dëkk bi naa ngor mooy danoo gore am ngor. gis nga yii ñuy wax nii day ñoom lay tardeel du ñu tardeel ñun de ñoom lay tardeel gis nga gis nga seen boobu ngay wax ñu fa toogoon les chroniqueurs yooyu. Hmm. ñoom seen Saliou Gueye daan fa toog défendre dama ci jaajëfal ku ñuy wax Serigne Niang. Hmm. di wax ki ñuy wax Fatou Abdou Ndiaye. Mm. maa ngi maa ngi publicité te sa wóoru ma ko def. mais fii ku fi def baax ku ne <laughs> ñu wax ko. xam na danoo wane seen bopp ci réew mi vraiment teg loo xamante ni ci débat yi bu amee boo dégloo da nga xam ñii la wuñ ak kenn farporloo wuñ ci li ñuy wax ànd ñu ceeg personne mooy dëgg rek moo leen tax. dañuy dem ak seen ultime conscience. merci beaucoup ku mel ni Serigne kook kooku da nga da nga koy sax yërëm Serigne Niang dem naa ba tiit ni kii est-ce que ko jàpp ndax yenn gars yi dañ naa kii passif la. te Serigne Niang du Pastef Serigne Niang Sénégal la maa ngi moom ñun Sénégal lañu. Hmm. man bi may nekk société civile service nangu ma bokk ci parti politique. Hmm. ndax dama bëgg am sama hmm. autonomie. ndax bëgg naa képp koo xam ne wàcc nga yoon ma taxaw sa kaw wax li ma mais ñun société civile def nañ sax nag ba nekk ay politiciens léegi maa ngi nii maa ngi ca parti politique yi dugg naa ci. parce que boo ci duggul doo ba exprimer wu doo wax yow lan nga bëgg a wax ndax da ngay ut ay soo waxee ñu non yow société civile bu far nga te société a far te ñu ngi bëgg a rey. kon. alors allez allez allez kon télé yooyu nga may wax. Ah. ñi nga xam dañ leen fa tegoon. Hmm. muy man de bu doon maa moom télé ba. ñu hmm. ci opposition bi laa bokk. liir gis nii télé bii doxee dinaa leen yéen ñii ñii ak ñii doot ñu ñëw ci émission bi dama leen di dàq. mais non non mais mais mais mais mais quand même bokk si opposition bi mais. télé ñëpp a ngi fa euh, sont les différents couches yi na xam. journaliste fa est-ce que yow bi nga may posé si boobu léegi ndax da ngaa far. mais jàpp nga ñoom dañoo far. mais dañoo na ñoom dañuy boo leen dégloo xam dañoo far. la ñuy waxtaanee lépp de fi dool ci càmbar dossier yi la nekk. mais ka toog ah. si télé ba ka toog si télé ba mii xaar mii doon xaar. ok xam nga man li may wax rek ci Bougane Bougane dañuy suma frère dama ko bëgg muy taalibe sëñ Mbacke Soxna Lo vraiment di battre campagne sans su ne ñu koy gis xam nga man dama ko boole woon sax ci gouvernement bi ba def ko ministre de l'emploi vraiment parce que euh, hôpital dispensaire yi nga xamante ni ñoo nekk ci Louga surtout ma Tomboronkoto dëkkam yooyu xamante ni moom moo ko moom moo ko luxati daal xam nga nekk ci liggéey bu rafet. looy dosé ay ay lu yow xam nga ni réew mii fii la jëm yow opposition nga bokk lan lan lay dugal ci ay góota nga naa ay deuxième tour mais yow kon gëmoo loolu li nga yow li nga doon xeex déggoo ñu dañoo taxaw dóor ci table yi muy sëñ Bara Ndiaye di Dame Mbodj di ñëpp dañoo tax Ousmane Sonko man mii ñëpp ni premier tour waaye yow naka ngay jëlee appareil bi gagné mbir mi ba pare taxaw naan da ngay xaar deuxième tour moom frère Bougane Bougane da ngaa juum ñoom Khalifa Sall ak Barthélémy dañoo ci politique boo xamante ni erreur politique moom kenn du ko baale moom asafurlaa moom mun kaa fay mën ngaa wax sa kàddu asafurlaa waaye bu dee politique asafurlaa moom du ko fay muy erreur bu ngan kon bugaan foofu dafa xaw a su ma frère la mais nag ku nekk ak sa ak bëgg ak li nga bëgg mm. deuxième tour moom boo koy xaar yow moom lan dañ daan wax naan bugaan ak système bi ñoo ànd may bañ ba ci biir prison bi du ma la fenaa ah. su ma benn xale Maodo Tall walaay mu barki bàyyi laa ak Seydi Maodo Tall mu ngay dégg ni moom moytu leen bugaan man ko bàyyil bugaan ndax man seen TV da di sama télé su ma xëyee ba seen ba nii may waxee seen TV laay jàpp. comprends nga moom seen seen plateau duma ma ko rot grand plateau ak yëpp dama koy seetaan mais ñu ne moytu la man suñu lay jiiñ dëmm fekk la ngay soccoo yeeli liir xel day tey. waxoon naa nag Bougane du doon candidat. mais bay euh, grand plateau bi de Ramadan. non maa ngi ci yéen soir de Ramadan maa ngi TV fi ñu toll nii. <laughs> waaw mais xam nga 5 TV moom maanaam de ku ñëw nañu di ngeen xam ne nag ñëw nañu te dinañ ko yaatal ci àdduna wërngal képp. ba ngeen xam ne dama daan ñëpp koy suivre ak oustaz. alors de Bart euh, de euh, Bart Idi ak Khalifa Sall seen 1% laa bëgg nga ñëw say ak euh, Mor allez li ma ko doon avant avant pour mhm. passer question boobu nga Idi ak mhm. Khalifa Sall seen avenir ci politique dama koy laajte comme que moom doomu Malika la. réalisation yi nga xam se ne nii waroon na am Malika te xam se ne bi fi jógee mot motali wu ko fa. yéen yan réalisation yooyu noonu ngeen war ngeen di xaar président Diomaye. mooy li ñu koy njëkk a xaar ci Malika mooy Malika amul dara lu jëm ci wàllu infrastructure zéro. mais Kër département la. waaw bu plus. su fekkee nag ci turu département bi lay wax dinaa gën a yaatal mais rawatina Malika gi ma dëkk nag sawar euh, naa trop wax ci ndaxte nag ku ne xam na ni Malika dañ koy dégg fu nekk waaye commune yi gën a dellu ginnaaw ci la bokk. rawatina lu jëm ci wàllu suuf si ñuy wax audit foncier président Diomaye ñu ko ciy xaar muy littoral bi jàpp gàtt géejawaay laay wax muy Malibu Sonko déclaré euh, signalé woon na côté bii ci euh, corniche bi ah mooy littoral bi rek la wax jëm ba Lompoul rawatina li xew Malika nag ah ak euh, yëmbal muy fa nga dëkk ah Tivaouane Peulh vraiment jàpp ba Mboro noto guy jamaa suñ dëkk jëm ba Lompoul fa vircon bi nekk li fa xew ñaaw na. gaa ñaa ngi liggéey nag maa ngi bi may ñëw nii ku nekk ngi teg ay prédateurs lañ leen wax de foncières ay sàcckatu suuf ci ministères yi nga xam ñoo fi nekkoon dañ doon séddale ba nga xamante ni seeni doom sax waa ji séddale mooy domaine ñoom gaa yi ñu koy séddale yow sa caat bu ndaw mi nàmp nag ñu defal leen ko un hectare lii dafa xew ña ngay def lu leen neex waaye na leen wóor ni kuy liggéey ku ne na nga tey taxaw te xam ne ñun duñu bàyyi mu jàll li naan audit foncière dina am ci littoral am ci suuf si département de nag dañoo bokk ci li nga xam ne moom mooy ci mbir mi ne ku ne yëg na fekkee na gis na li muy mobiliser Sonko fi mu départ ak lancement bi gën a rëy ci àdduna wërngal képp muy Kër Massar ñu am fa dese ku ñuy wax ma Mariama Sarr yéen ñëpp ko ñu ngi koy ñaanal moom tamit vraiment mu bokk ci li may wax mooy euh, président bis bu toogee ba def euh, presse serment ba pare. en déprise dal ba pare nan def journée boo xamante ni pour ñi dee ñàkk seen bakkan la woon ci li nga xam moom mooy euh, ci manifestation ak meeting yeeg ñoom seen moom muy deuil national ñu defal leen ay monument loolu dama koy parenthèse pour Bassirou monsieur le président de la république mu dégg ma ah. département Keur li mu manqué bari na li leen war a defal tamit bari na te mu ngi ñuy xaar kon na département bi yëpp ànd muy monsieur le maire bi laal jaata maa ngi koy nuyu moom tam vraiment ak maire yi maire yi bees yi ñëwaat yi nga xam ñu ngi ñëw comprends nga ah ki fa nekk actuel muy Malick di Mama Talla Gadiaga ah ku fi liggéeyal dañ la fiy jëlee. mais Barthélémy Dias moom nee na moom ginaaru kenn nenu ko sa maire bu Dakar. bon dama la xam nan gin xam nga dafa am ginaaru élevage ak ginaaru pondeuse ak ginaaru kër. Hmm. ginaaru élevage nag mooy bi nga xam bactérie la tudd euh, moom moo koy jur maanaam boobu poussinière lañ koy tuddee quoi boobu courant la koy doxal ak thermokine ndox. jël nen boo xamante ne benn séq moo ko tëbu mooy élevage yi ñoom Anta Babacar Ngom di defar waaye daam bu ñuy wax ginaaru kër gor bi nga xam moo la sukk boofu la nag nga judd nga xam boobu day dem ci fi ñuy wax xam nga ginaar 21 jours lay judd mm. ñu dugal ko ci fi tàgg bi kii toog ci yaay ji boof ko ba juraagu judd mooy gor Barthélémy Dias bu dee ginaaru kenn nen ko na xam ni ginaaru Ousmane Sonko ko nen ci maire de Dakar bi bu nekk mm. ñoo ko fal nan dem élection local suba un pour cent zéro virgule deux ko ko voteel. nee na mooy borom Dakar. waxul dëgg bu ko defoon gagné Dakar Dakar Ousmane Sonko borom ak ba Diomaye Faye du fi dara Barthélémy ku kuy gën a perte ci politique ba pare yóbbu waxal xalifa Sall euh, kii euh, kii nu mu koy waxee retraite Khalifa moom booy xam naa dinañ ko préparé kaala geeg yet beeg satala gi mu yor Barth nag moom xam nga boo xamul li la war nit ñi def li leen war Barth di nee daa pànk. yow ab géwëlu xaw ma nu mu ko mën a waxee sax ah, man xaw ma parce que du ma parce que njaago yi ñun lan àndal ñun lan woteel <laughs> moom dëkk ba mu jógee xaw ma Cap Vert xaw ma ban dëkk la jógee mënu ma ko xam sax man daal mënu ma xam fan laa ko mooy day pànk na nee na dafa guerrier la nee na bandi la nee na day rey nee na lu ko neex lay def waaye nguur gi moo fi changé lu bare bare bare ànd ak nit ki nag di xeex ba yàgg